yuñ sibi jikko yi ak bëgg-bëgg yi ak jëf yi ak jàngoro yi allahumma jannib nii munkaraati al axlaaqi wal ahwaai wal amali adawa allahumma jannib nii munkaraati al axlaaqi wal ahwaai wal amali adawa xadisu bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi jaxasoog nit ñi ñu di ko lor mu di ko muñ moo gën jullit bi nga xam ne doo jaxasoog nit ñi te du muñ seeni lor xadis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almuslimu ida kaana muxaalitan annaasa wa yasbiru ala adaahum xayrun min almuslimi alladi laa yuxaalitu annaasa wala yasbiru ala adaahum rawahu tirmidi waxtu julli suba waxtu na daan tàbbi six heures quinze juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom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 jant bi dana fenk 7 heures 28 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett di so 19 heures 10 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin